lii di sinébar wala ñu naan doppa ci biir tàggat yaram lii mooy taxawaayu UNESCO jaarale ko ci session de la conférence des états parties à la convention internationale contre le dopage dans le sport ak ay instance yu àdduna bi taxawal ngir lépp lu jëm ci wàllum tàggat yaram lu ci mel ni fonds mondial antidopage ak agence mondiale antidopage mu nekk xeex mi nga xamante ne réewub Sénégal itam jóg na ci réunion yi nga xamante ne ñu ngi koy amal day wone sunu position ak sunu engagement ndax bi moo nekk ñaareelu réunion ñu koy amal fii ci Afrique te ñaar yëpp fii ci Ndakaaru la la jotee amee te lii nag day wone euh, maanaam signaux yi nga xamante ne Sénégal am na ko ci Afrique wala sax ci àdduna bi pour xar seen tànk tubay pour xeex li nga xamante ne moo jëm ci wàllum naam euh, dopage amal xeex mii comme ni mu waxee réew mi jël na si ay pexe yu am solo. dopage xam nga du ñu ne mu ngi fi mais mënut a parce que am na ñoo xam ne comprimé la ñuy jël waaye am na ñoo xam ne sunguf la ñuy jël moo tax loolu lépp ñu war ko encadrer làmb bu amee mbër yi dañ leen di tester avant ay après fas yi di daw nii di course sax de boo gañee ba pare dañ lay tester balaa ñu laa jox raaya bi donc loolu lépp bokk na ci li Sénégal teg pour wane ne ñun dañoo bokk ci xeex bi nga xamante moom la ñuy xeex. kii fi nekkoon jëwriñ gi jënk wàllum tàggat yaram. daal dina woore gouvernement africain yi. ñu taxaw temb ngir xeex li ni mel. kon lu ama am solo la loo xamante ne. li ñu ciy wax ak li ñu ci liggéey Afrique moo ci war a jiitu parce que bu ñu bëggee ñëpp di def tàggat yaram te kenn du ci jël produit bu war te jël loolu moom mooy tax xele yi am wër gu yaram loolooy tax it compétition yi am njariñ kon réew mu ne war naa soob loxoom ci xeex lépp loo xamante ne drogue la ci wàllu tàggat yaram. COP 8 bi daa dina dajale lu toll ci juróom-ñeenti fukki réew beneen réunion bi nag dinañ ko amal si njeexeelu octobre atum 2023.